waa xam nga li ñu li ñu xam te mu leer mooy mënoo tabax lenn ci biir ay coow lépp loo bëgg tabax rek daf koy def ci biir dal dal googu nag day nekk diggante ñu ko sëkk moo waral ñu jàpp ni mbirum euh, confiance bi war am entre jàngalekat yi ak gouvernement bi war nañ koo war a xoolal ba nga xam ne loolu ñuy dégg naan digg nga ak man loo deful ko gouvernement bi nag mën koo moytu ba nga xam ne lépp lu mu digg ak jàngalekat yi ci waxtu yi mu ko waxee mu mën koo jëmmal loolu mooy indi dal parce que jàngalekat bu amul dal. li muy indi mooy xel bi ak générosité bi muy laaj pour gunge xale bi dana manqué bu amul dal mooy waral muy tëj classe am fële ca Kédougou ñëw ba Dakar di lijjanti ci ay kayitam konte nag war nañoo góorgóorlu ba nga xam ne loolu am dal googu nag nekk loo xam ne dañ ko war a lijjanti seulement bu coow amee dal da nga koy gàttandu gàttandu ko mooy fii nga xam ni coo amul si nga war a fexee di am waxtaan woo xam ne day lalu bu dëggu bu yaatu ci diggante acteurs yi nga xam ne ñëw sekk mbirum jàng jàngale bi moo waral président de la République loolu mu woote woote waat sax la ñu war a wax Euh, nekk na loo xam ne rafetlu nañ ko mais jàpp nañ ni woote boobu ñi mu ko jagleel mooy ay ministre am parce que xam nga société civile wala syndicat du wootee waxtaan diggante jàngalekat ak gouvernement donc ay ministre am dafa mel ni kon président nangu na ay ministre am waxtaan bi war a am ci digganteem ak euh, ak jàngalekat yi ak travailleurs de manière générale manqué na kon nag war nañ ci góorgóorlu moo tax ñu jàpp ne ministres yi xanaa danañ dégg woote waat bi nga xam ne moom la président de la République def bu ko defee en attendant même sax muy am monitoring bu yaatu diggante gouvernement beeg jàngalekat yi que ministère bu ne mën nag di waxtaan ak ay ay njabootam euh, que mu am coow ak mu ñàkk am coow a euh, une avec une régularité ne weer bu jot danañ daje wala ñaari weer jot loolu dafa am solo bu ko defee ñu mën a xool poñ yu ne ak fan lañ ci toll dossier bu ne nag benn avancement lañ ci def loolu bu ñu ko deful du mën du mën a sotti parce que euh, ni mu amee ay ministres noonu aussi la amee ay secrétaires généraux de syndicat te ñoom it dafa am ñoo xam ne ñoo leen fal te am lu leen laaj di def pression si ñoom. kon te nag pour ñun loolu mooy li nga xam ni moom mooy jëmal mbir mi bi si topp nag bu ñu amee rencontre yooyu sectoriel yooyu mu am nag ñu delluwaat nag ci monitoring bi doon am nag diggante gouvernement bi yëpp ak jàngalekat yëpp di waxtaan ci poñ yi ñu yi ñu tëral fan lañ ci toll yan jéego lañ ci def lan moo ci manqué lan lañ ci war a puus loolu tant que defuñu ko rek xelu jàngalekat yi du dal te bu xelu jàngalekat dalul Euh, système éducatif bi mën naa am ay jafe-jafe ay yëngu-yëngu te bu amee yëngu-yëngu mais performance yu bëgg mooy résultat yu baax yi day manqué te bu amee yëngu it ñi nga koy gën a yëg mooy xale yi nekk ci école publique yi ñi nga xam ni ñoo ngi ci biir ci ci biir ci biir gox goxaat yi kon nag nekk na loo xam ni ko si def euh, du ci tàyyi di woote pour que ñu fexe ba ba nangu te xam que ni ci biir dal kese la ñu mën a tabaxee lépp loo gis ci àdduna ci biir dal kese la ñu mën a tabaxee euh, système éducatif bu